ma luutu luutu man kooku kër kër yow waxal ma yaay dama sànni ñaar ma bañ ñaar rek ku jur gi dëgg du dund fenn bëgg yàlla ma gërëm di amul li ma dara tege sax mag yi li muy nekk yu mën a faar taalibe ba wala ak saa wala si àgg kay ma yow bandi dëgg tey yore góor wala bandi dëgg tey sama dugg ci seen borom fii di nga ci yokk te marché bi di nga ko tuddee wane dama ko dama génne kaso et ku ma dégg dégg na mu xoof wala ma leen sa keneen lii da nga doon soxla des su ma woo léegi mu naan mu tënk ko lii dafa war a bëri sama kawar. lii da nga tur yow ne dama doon. oh man dama ko. man gàddu ma gàddu ma gàddu. hey hey what's up. Yo, build the one. des civilisations, est-ce que ça va et gars yi est-ce que yéen koy yëg mais et show bi tàmbaleegul ah ana blende blende yaa ngi ma xool je sais que tu as l'idée déjà hey hey Cette fois-ci, c'est pas il faut oublier. Non, mais je vais assassiner. Tout le monde. C'est des bêtises, c'est des conneries, on m'a Et j'avais confiance à mes amis. Tout le monde.